mbërgale yaay mbërgale yaay mbërgale yaay su yaay mbërgale yaay fanaan aca mbokki internautes yi gannaaw ba ki nga xamante ni moom mooy euh, Marley ak ki nga xamante ni moom mooy Sokh bëre ba pare mu nekk combat boo xamante ni ñu bari dañ ko doon xaara euh, makan mu am benn geste bu mu def ñii ne geste bi lan la ñii ne dugg ci biir géew bi mu nekk xale comme ñoom wax na dëgg ndax moo tëgg combat mais dañ koy bàyyi mu nuyoo laaj ko combat bi makan ñu ngi lay ziar di leen delloo ziar ah, ah di leen nuyu di remercier ñëpp ah. vraiment bés bi kenn mënul wax ni bés bi neex vraiment on a ah, li may faral di wax rek suñu jeexalee journée bi ñëpp mën a ñibbi ci jàmm man loolu mooy sama victoire na ñëpp ñibbi ci jàmm ak salaam kenn euh, gaañ bu kenn xeex man loolu mooy sama victoire di remercier la police nationale euh, bés bi ñoom ñoo ko moomoon euh, ñëw nañ ak fanfare xanaa ni su amee tam xëy na benn yoon lay am dans la vie wala bii mooy deuxième fois bi mais man mosuma ko fàttali ko euh, donc dama leen di remercier ci loolu. Euh, Makan nga jóge ci journée Boy Niang Balla Gaye même pas deux semaines ñu gis nga kiiwaat combat yu bari daan na lan moo tax loolu lan moo tax nga teg la combat yi. bon combat lii que euh, sa papa daan na def lu raw lii daan na tëgg dimanche. même pas deux semaines ñu gis nga kiiwaat combat bi bari daan la lan moo tax loolu lan moo tax nga teg la combat yi. bon combat du dara parce que sama papa daan na def lu raw lii daan na tëgg dimanche samedi bi daan na ko tëgg tegale ko. donc euh, c'est pas une première daal. donc ñu on est pour euh, même suñu naroon dëgg dimanche prochain nekkal ko ci ay xale lañu. sama équipe bi xale la. Gaston production nous sommes tous jeunes. te ñëpp a ciy jàpp ci waar bi. ñëpp a jàpp ci liggéey bi ku ci mel ni Abdoulaye Ndiaye ku ci mel ni Aliou Ngueye ku ci mel ni. ñi ngeen gis sama ginnaaw ñëpp euh, ci Gaston production lañ bokk dañuy jàpp. Mmh. waaw euh, Fadam mi ngay gis sax yéen ñii di ma interroger bu ma tëgg di ngeen def di ngeen def sama baax def seen nga am tey boo xamante ne ñaari espoir lañ muy sopp ak xale euh, muy xale bi di mar nga dugg ci digg géew bi dem nga sax ba mel ni ku mer lan la lan la lan non dama leen doon c' était une façon juste encouragé leen pour ñu bëri. ok loolu la rek dama leen doon encouragé pour ñu bëri xëy na am na benn réaction boo xam ne su ma ko defee dinañ ma xool ñoom tam dinañ ci xaw a am tuuti kii. ñu ruus ma ci. donc euh, je pense que def na tuuti effet. bëri nañu après mais. lañ waroon dooree mais sant yàlla mel nu ma laaj makan ñaari baat la làmb makan sport la te sport muy leneen ak leneen donc làmb ci sport la bokk match nul su amee dañ koy nangu ñu félicité mbër yi ñoom ñaar ñëpp ñu wax leen euh, prochaine fois suñu amee komba ñu gën a góorgóorlu. mais mais Makan Makan gis nañ ne roi des arènes bi mooy Modou Lo réew mépp a ngi wax digganteem ak Boy Niang numéro 2. te yaakaar naa ne nitu làmb yi ci bari ñu ngi naan bu ñu soñoon waa Gaston production ñooy tëgg combat boobu ndax mu mën a am combat bu àgg. tey jii nag sénégalais yi ñoo bëgg Makan dugg ci diggante Modou Lo ak Boy Niang numéro loolu lan nga ci wax sénégalais yi. non ñoom ñaar ñëpp c'est des muy Modou Lo muy euh, muy Boy Niang amee frère dañuy déggante tous les jours donc euh, combat bi ñu ko bëgg bëri nañ donc euh, ku muy sa wërsëg rek yàlla na ko dëkk. mais Gaston production mais ndax Gaston ngi ci ndax yéen a ngi ci. production mi ngi ci lépp fii la nekk pour amateurs yi fii la nekk pour supporters yi. ok su ma ci nekkul sax maa ngi ci. Uh-huh. démarché nga ñaari mbër woo ko ci kenn. dana Gaston production. su ma ci nekkul sax maa ngi ci. ok ah, maa ngi lay nuyu Fatma Fadam maa ngi lay ziar. Fadam euh, euh, Marley ak Sokh li ñu bëree tey. non mais lamb loolu ànd Fatma Dia. mënu chaque jour bàyyi rey nag. Fatma Dia semaine bi mu tijjee bële combat yëpp àgg nañu. bu benn combat àggul. nañ jël combat yi daan àgg def ko ci combat bi àggul tey. looloy lamb. looloy lamb looloy lamb at na solo mais ñoom ñaar bëriwuñu ci pression waxal ci suba. ñoom ñaar bëriwuñu ñoom ñaar bëriwuñu ci pression. bëri nañu ci pression ci ñaari camp yëpp. ok bul fàtte ne ñaari camp yëpp instant yii nii dañoo nekk ba toog. dañoo suf soq. léegi waaye dañoo suf ki nga xam ne nii mooy ah, ak Sokh lan nga gisee combat lu ci ne ñaari dëkk yi li ñaari mbir leen attanul ah. barki démb Balla Gaye numéro 2 dafa dugg ci arène nationale am si defal géejawaay njamb marle ne ak lu mën a woro daanu soq jóge ci defet booy ñaar daan bërki dem ñu indi ko moom it boo xoolee mobilisation bi soq daan def des na fekki na ko ak lu mën a am waroo daa loolu moo gis ci ñoom def nañ nag mais benn bi ne fii nga yem match bi daa bokk ci la daa bokk ci sport victoire la defet ak match bi est-ce que ñoom liñ communiqué yëpp euh, xaaroon na ci nii ñoom liñ mbër melul na mu waxee na mu jëfee la mel te dama ne mbër sax nit laay wax nit melul noonu waxee nu mu la mel léeg-léeg mbër communiqué ci plateau ba nga jàpp deere adversaire mu ñëw nga naan kii moom la. làmb ni mel. lan defaroo waaye xam naa seen combat du yombaat ndax amateur yi kontaan na ci ñoom. dama ni jéppi di waaye daal ah ñu ngi doon xaar victoire bu leer par rapport ak nii làmb ji guddee na sedd na stade bi sedd na guddee na maa ngi nit naan was. loolu moo leen wan ni ko ñu doon sonn ah di nuyu Eva. Eva maa ngi lay nuyu sama xarit bi kenn du yow. Eva Diatta Eva Diatta borom Paris la France. maa ngi lay ziar. maa ngi lay euh, ak Sokh nan nga ko dundee tam. waaw boo xamante ni vraiment axlu làmb ak rawatina amateur yi ñëpp ñu ngi muy Sokh muy Marley ñoom ñaar ñëpp bu ñu ñëwee ku ci nekk wane nga dayo bis wana nga cër bi nga xamante ne jox nga ko bis mais dañu décevoir amateurs yi ndax amateurs xaar xaaruñu woon combat capital bu mel ni ñaari xale yoo xamante ni tey jàpp nañ ni ñooy ñooy jël relève bi ñooy remplacer Balla Gaye ñooy remplacer Modou Lo ñooy remplacer borom Paris la France eh ben ah quelqu'un très social acca jiili jiili maa ngi lay ziar maa ngi lay ak Sokh nan nga ko dundee waaw combat la boo xamante ni vraiment axlu làmb ak rawatina amateur yi ñëpp ñu ngi ko doon xaar muy soq muy mar ñoom ñaar ñëpp bu ñu ñëwee ku ci nekk wane nga dayo bis wane nga cër bi nga xamante ni jox nga ko bis mais dañu décevoir amateur yi ndax amateur yi xaaruñu woon combat capital bu mel ni ñaari xale yoo xamante ni tey jàpp nañ ni ñooy ñooy jël relève bi ñooy remplacer Balla Gaye ñooy remplacer Modou Lo ñooy remplacer Euh, Eumeu Sène ñooy remplacer keneen ak keneen ak keneen ci làmb ñu ñëw ba fii di niil mhm. làmb nag bëre daan da cee bokk match nul da cee bokk mais bëre ci jom ak fulla ak fayda ba daanu da lay permettre suba nga mën a amaat beneen combat dégg naa ci ñu bare bare ñu ne euh, ñaari mbër yi lu ñu leen bootal lu ñu boot seen ginnaaw dafa bari moo tax ñu ñëw mbër foofu nga koy xamee ndax wolof daf ne nag bu mag ci bis bu mag rek lay dee bis bu mag nag boo ci ñëwee daanu def li nga war a def daanu da ngay xam ni ndam yoroo ko yàlla moo ko yor mais ñu ngi encouragé euh, amateurs yi tey ñaari mbër yëpp amuñ lu ñu leen wax mais ñu ngi encouragé amateurs yi nga xamante ni vraiment ñoo ñëwoon bis bëgg a gis xeex bëgg a gis bëre te a gisuñu ko ñu leen masaw bu baax a baax a baax kontaan naa ci jaajëf mbër gàlle yaay mbër